We'll be right back.

de waaye nag xeex ba ak fantasiro fasantik sikkim lay doon ndaamal kajoor nee na du fi yem day attaqué nag article 57 bu projet de réforme du code électoral yóbbu ko ci kanamu CEDEAO Walf Quotidien moo koy dëggal nee na idi va attaquer la loi devant la CEDEAO ndax nee na daraay constitutionnalité amul si biireb loi laaj ma fu mu koy jaare nee na bàyyil xel si jurisprudence bu burkinabé yi Sud Quotidien feelu ko sa wet ga nee na idi traduit Macky Sall sàll la a dakk nag wax ko dëgg ndaamal kajoor mooy wax ñetti yoon a ngi muy caxat-caxate dëggaat te violé suñu constitution bi lii moo fi war a dakk te loolee ngir mu dakk nanu ko def rek xeexu lébu duñu wax mukk dama lay danu laa rek mbajum kanam boroom a koy fajal boppam lii nag waxuma la sax mbajum kanam kurpeñu kanam la kon nag nanu jël suñuy kurpeñ boole delloo ko sàll ngaari mii jël mbiri yóbbu ko ci CEDEAO Idrissa Seck nee na ci l'enquête fii la bët yem nag terminus du regard et de la vue kon nag na ñëpp xeex bu ñu demee ba péncum ndawi réew mi sukka jébb neexul ba neex nag waaye man amatuma si ak doye di dëggal ndaamal kajoor ba tey si le quotidien nee na nekk te kon Macky Sall mii dafa gàlle da ko bandu déggu ci dara Idrissa Seck nee na Macky Sall génn na xeet njabootuk Fara Wade Ndiak alkaali Massamba Abdoulaye Wade mii de kii di Macky Sall amatu fi place tey jii man maay le digne héritier de Wade man maay donay Abdoulaye Wade Fara Wade Ndiak Daara Wade Ndiak yukku mu si songum xeej ga nii nga xam ne rek Khalifa Sall noonee la nekk kon donay ba nu ko génnee sa commissariat ba l'observateur ni idi mer na de daamal kajoor mii yëngu te la ko yëngal du lenn lu dul la mu fa daj daamal kajoor mooy nettali sa l'observateur takkader yi dañu ma fungu gàtt nguufaan ma sànni ma si fourgonnette boo xam ne nii kenn mënu fa nooyi ndax xeetu gaz lacrymogène chauffeur ba doon dawal fourgonnette ba sax dem na ba xamatul kon fa muy jaar ndax xeet ga Malick Gakou nekk noppil booba nag ñu ngi may jox sama wàll sa commissariat central njiital grand parti nee na man moom waxuma sa takk der waaye Macky Sall ci boppam moo ma jàpp otage si diirug ñaar fukki waxtu ñaar fanaan ñoom ñëpp ne seeni chauffeur yaakaaroon a dikk njiital bokk gis-gis ngir massaw Malick Gakou Idrissa Seck Thierno Bocoum ba ci kilifa bu yaanaamaar mu jëndal leen ay sandwich jox leen ngir ñooñee am lu ñu def seen biir dëfalu dëgërlu jamono joojee de waa APR tourné nañu page yu parrainage ba bàyyi fa coow la nee nañu de gémmañ guy nàcc du wax jàmm ñooñee ñoo desee wax ji ñun li ñu desee du leen na lu dul wàcc si terrain bi nag Aminata Tall si Vox Populi ni na ma kande waaye man mii bàyyi naa fa coow la ndax luwaa bi kat dafa laaj dajalay signature te jàmbaar ca waar ba wàcc naa ca waar ba dama war a dajale ay signature kat doy sëkk ma lancé la campagne de parrainage pour réélire Macky Sall au premier tour en 2019 ndax bilan rek situation économique réew koppar baa ngay circuler te askan wi ñoo la gën a xam ni réewum Sénégal mii kat am na jàmm kon li si des kay moo di ñu bay suñu waar rek wàcc dajale ay signature falaat Macky Sall rek nag te Aminata Tall mii nee na si lay dox le soleil yéeni kaay di ko dëggal nee na Sénégal neex na de ba waa biti réew daw wutali ñu yéeni kaay bi nee na lëkkaloo bi dox si diggante Dakar ak Paris ñaari njiitu réew yi waxtaane nañu ko de xoolaat nañu ko gëstu nañu ko liñ bat nañu ko te kantanal nañu ko waaw Macky Sall mi demoon na a ji de Emmanuel Macron sa France foofee lañu ko waxtaane Vox Populi nee na neexul neex nag waaye Minak mii nag danoo France Sénégal la jël rek def ko tapis rouge ngir France nak. war fay mën dagu numu ko nexé likoy firndel mo ko Sénégal signé tin ab décret Dogol waaw njiitu mi approuvé na transaction bi dox si digënté Tigo A consortium d'entreprise yi nga xamné ne doomu France moko jité. Yérim Sow ak yenen i entreprise mel ni kon leer na xeex bi doxoon ci digënté Kabirou Mbóoj Wari ak Tigo Ciow la jeex na enquête ni Macky doon sa cutis à Tigo le quotidien feelu ko sa ga néna na Macky wari na Tigo dé. aha wari na kon nasaraan Cheikh Yérim Sow jamono jooje Serigne Bay Thiam si laas quotidien xàcc na xiiram de ngir caw jàngalekat ya nga xam ne dañoo dëgër bopp matt fa ñu matt rek ne bu daggul du nu baax ndax Serigne Bay Thiam nee na woote na ab janox taskatu xibaar yi tey jii te dana fa yëkkati ay kàddu nag ñu bëri ñu ngay njoxtu ni kàddu yam fay yëkkati du lenn lu dul dogal ba ñu jël ngir nag wañ loxo jàngalekat yii ñu delluwaat sa classe ya kanu delluwaat ab atte moo di rek Ngaaka Blindé rappeur ba libération ni dossier bi de léegi yóbbu nañu ko nag chambre criminelle bi nee na Baba Ndiaye mii ñu gën koo xam ci Ngaaka nu ko toppe léegi moo di ab complicité waaye terewul mbir ma dañu koy atte fa nuy atte reykatu nit ya jeexaleex l'observateur sa yëmbal quartier boole mbay loxo dar na fa gémmañ de ndax benn waay bu nu xamul kan la waaw alxam moo fa nax ay xale kenn ka ñetti at kenn ka ñeent dugal leen ci ay tabax yu yeggul waaw alxames la jamono joojee nga xam ne askan wi yëpp ñi ngi bàyyi seen xel ci télé yeex rajo yi ndax la doon xew sa assemblée nationale xale doon def naka sa dul sa tabax ya lu mu def kanamu xale mel ni architecte bu bu ko jaaxal fu nekk caxat-caxatee ko dagg ñaas kanamu xale ba kenn xamul lu ñuy nuru ñu ne déetawaay mu yootu seeni i awra ne ko tàppit nag seen i waay yàlla ci boppam la dagg ay taalibe de ñoo romb tabax ya rek dégg xale ya di jooy ñu daal di dugg rek fekk fa ay xale yu jaaxaan yu amul i awra tàppit lañu ko def nag lii nag laa xamul mooy lan gis nañu fi nag ku la nuyu say awra dem ay xale yu ñu tëddee wala yu ñu sàcc baa rek fa dugal sib saaku waaye modèle bu bees bii ne xanaa ñi di xarafa sax dañu saa sompas tuut waaye tàppit la ko def bàyyi fa naxum neen man nag damay laaj fu nit di mucce mu ngook dig daje si yeneen i kaay jaa